mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak uh, réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy waxtaanee uh, koo xam ne itam ci ñun la nekkoon uh, amoon njariñ lool ngir askan wi ndax yenn woon na ay xeex yu baree bari yoo xam ne ba léegi mi ngi wéy Abdou Latif Gueye mi nga xam ni moo jiite woon organisation islamique Jamra ñu fës lool jamono yi ñu nekk ndax liggéey boo xam ne bàyyi na ko fi ñoom ñu di ko wéyal euh, Mame Mactar Guèye mi topp ci njiital euh, boobe euh, ONG di Jamra moom la ñuy dalal tey ngir waxtaanee Abdou Latif Guèye mi génnoon àdduna juróom benn fanweeru avril atum 2008 waxtaanee itam Jamra ni nu ko taxawee ak boobaak léegi tànk yi nuy doxee ñu ngi lay nuyu sëñ bi Mame Mactar Guèye am mbégte dalal la ci démb ak tay bi di la dalal jàmm ci sa kër réew mi doo fi gan bismillah waa kay jërëjëf euh, soxna ca Ngom kon ñu ko waxee rek euh, di amaat mbégte rek di delluwaat ci suñu kër mm. eh, ndax ñun daanaka duñ fa gàñ mu di réew mi FM mm. di sóoraale nag ci nuyoo bi mbooleem euh, auditeurs yi mm-hmm. te bañ a ñu yëngatu ci kër gi te tàmbali ko ca kaw a kaw mu suñu xarit Mbagnick Diop mm-hmm. kon nag eh, yal na yàlla dimbali eh, laaj ak tontu yi ñu fas yéene seq ci simili yu néew yi mhm. ñu mën cee jëriñu ñu ngi ci kazalika mboolem auditeur réew mi fan yi émission bi ñu jàppoon ko ay bés bële waaye ay gàllankoor taxoon mu jut euh, sotti euh, jubluwaay bi euh, bokkoon na ci delloo njukkal Abdou Latif Guèye ndax juróom benn fanweeru avril bi ñu nekk ci ngeen ko doon fàttaliku doon fàttaliku génnuk àddunaam waaye ñu bëgg itam jaaree foofa dikkaat ci Jamra gën ko xamale ak nit ñi bu ko defee ñu xam lanay taxawaayu boobee organisation waaye ñu dooree ki nga xam ni moo ko sanc tey ñi xamul Latif buñ la ne woon mooy kan loo leen di tontu. Latif tey bu ma yeboo nii euh, maanaam euh, jëfandikoo waxin bi suñu bàyyi Abbas daan jëfee. Hmm. xale bu turbulent la dëgër bopp donc daanaka daf ko judduwaale hmm. li tubaab di wax naan dafa judduwaale ak deretu bañkat moom nag mu ngi defee école primaire am foofu te Gueule Tapée ñu di ko wax école Paille d'Arachide Eh, école cours secondaire am nag euh, mu ngi ko defee lycée vent hmm. wala ndoxam ñi di ko wax tey Lamine hmm. Gueye waaye daal dañ ci teg ay simili néew rek Latif jubal commissariat central de Dakar hmm. ndax grève yu bari bu daan am yi lycée boobu moom da daan bokk ci ñi ko daan sooke moo tax foofu lañ ko jëkk arrêté yóbbu ko gendarmerie waaye nag comme que euh, dafa tàmmoon euh, ci loolu ñu di ko tere mu di di diriger grève yi mhm. di ci moy di ci dëgër bopp noonu la def nag ba ñàkk ñàkk place am foofu ca lycée ba ñu dàq ko ah, waaw dañ ko ñoom dañ ko mujjee dàqaat mhm. alors ñu bàyyi di jël ko yóbbuwaat ko ci benn école privée catholique ainsi de suite alors euh, fa lañ ko jëkkee yóbbu tribunal nag pour àtte ko pour activité subversive parce que xam nga boobu jamono Senghor la multipartisme amul woon. Mhm. Euh, dans les années soixante dix. ba tax na moom da daan yëngatu dans les mouvements communistes clandestins d'obédience marxiste léniniste. mu am benn réunion nag bu amoon euh, ci kër ñoom Landing Savané ñoom Ablaye Bathily nu fa woon ñoom ñu euh, danse ko ba ñu ñëwee ji jàpp leader yi ñu boole ñëpp yóbbu te boobu Latif daanaka 17 ans rek la am. Mhm. alors yàlla dogal nag bi Senghor doxalee eh, ouverture démocratique bi ci 1974 alors 1976 nag euh, ka nga xam ne Latif yàgg na di ko admirer mhm. ndax xam nga moom euh, képp kuy intellectuel day gëstu say mbir mhm. te dafa yàgg di top Cheikh Anta Diop ci gëstu yi mu def ci wàllu euh, égyptologie ci wàllu les origines de de de la race noire alors moo tax nag ci 1976 moom ak Abdou Fall. ak Abdoulaye Ilimane Kane bu parti socialiste eh, ci la ñu adhéré au RND le rassemblement démocratique sénégalais waaye nag eh, foofu yàggu fa parce que dafa def daanaka juróom-benni at ci mille neuf cent quatre-vingt-deux nag ci la génne ci activité politique yi daa di dugg nag eh, ci lii nga nekk tey yow di ci yëngatu yow Fatou Thiam Ngom mm-hmm. di yëngatu wàllu tas tas xabaar alors euh, ba mu nekkee taskati xabaar nag ki ko jëkk a embauché nag mooy benn magazine panafricain bu ñuy wax le nouveau tiers monde mm-hmm. ginnaaw gi liggéey na ci beneen magazine panafricain bu ñuy wax Afrique Tribune alors euh, loolu nag moo ko gën a yokk ca cawarte ba mu ne ah lu tee loolu Kocc Barma di wax naan kuy njàngaan boo mokkale def sa daara mm-hmm. alors ci la créé nag benn journal d'ailleurs sax c'est l'occasion parce que ñu bari dañuy réeree mbir ne Jamra mm-hmm. judduwul rek nekk ONG. Hmm. waaye ab journal la woon. alors boobu nag la ko Latif sosé ci atum mille neuf cent quatre-vingt-deux mu nekk benn format euh, magazine comme Jeune Afrique rek. Hmm. ñu tuddee ko Jamra la revue sénégalaise des dossiers sociaux. Hmm. waaw comme ni ni ko ni ko tur yi rek euh, li ko taxoon na jóg journal boobu. mooy at weer bu jot dañu jël benn thème. alors naka jekk nag suñu numéro bu njëkk bi nag ñu ngi ko jagleeloon mbirum Sinébar ndax dafa takkar naa sa woon ci dëkk bi. kon mensuel la woon par weer la daan génn. voilà par weer la daan génn. Hmm. ñu tuddee ko Jamra la revue mensuelle et de. alors weer bu dëkk bi nag ñu ngi ko jagleeloon mbirum Sinébar parce que boobu dafa duggoon ak doole ci ñu ngi tuddee ci. société euh, sénégalaise bi ci école surtout. Hmm, ak surtout ci bërëbu jàngale yu kawe yi yu demee ni université université yi. mu commencé woon di créer loolu tubaab di wax ay rythme scolaire xale yu bari seen njàng du egg. ñi balaa ñu am BFM drop yàqaleen alors euh, ñi jël nag journal bi ko bu baax waaye nag dafa nekkoon contenu boo xam ne dañ ci daan waxtaan ak ay euh, psychologue ay sociologue euh, rahmatullahi alayhi yal na ko yàlla yërëm ku mel ni le docteur Omaïs hmm. pour yee xale yi daal que yi ñu leen di wax naan drogue dafay leer ak xel ak dafay nangam yooyu yëpp propagande euh, des des lobbies euh, narcotrafiquants la. Mhm. drogue daal drogue la. Mhm. commencement bi dina la xaw a gëlëmal tuuti ngay dégg lu kenn dul dégg di gis ay couleurs yu kenn dul gis mhm. waaye à la longue daal day yàq sa système nerveux alors beneen mois ñu jàpp def euh, prostitution ñun d'accord ñu wax ñuy ŋaññe. jigéen ñi nga xam ne ñuy jaay seen bopp ci mbedd mi parce que li ci ëpp ci ñoom bi leen jëm la approché ba enquête leen. Mm-hmm. ci xat-xatu koom bu tar. Mm-hmm. ñaaree moo leen ci dugal. ñii seen baay dafa gaaw bàyyi fa njaboot seen yaay loxoom jotu seen ginnaaw ñu dem dugg ci loolu. Mm-hmm. donte le kenn rafetlu ko waaye ñun dañu bëggoon wax ne jigéen ñooñu kenn waru leen marginaliser dañu war a tàllal une main fraternelle. seen nañ ñu dimbalee ba ñu am des activités génératrices moo tax nag Latif taxawoon na jigéen ñu bari ñoo xam ne dañ daan jaayi seen bopp ci mbedd mi que constituer leen en GIE euh, ñuy dugg ci mbirum cuub ci mbirum euh, jaayum euh, jën ak tamit ci du maraîchage alors troisième numéro bi nag foofu la amee problème nag mooy bi ñuy duggee ci mbirum franc-maçonnerie hmm. alors loolu histoire bu gudd la parce que daf ñu dikkal benn procès bu tàng jër am mille neuf cent quatre-vingt Euh, franc-maçon yi porté ñu plainte pour diffamation et injure publique euh, ndax lañu ñu révélé ci journal bi dafa feeñal seen i mbuut yu bëree bëri bëri bëri hmm. naka la ñuy defee seen euh, cérémonie d'intronisation ku bëgg a bokk ci franc-maçonnerie yan condition nga war remplir bref ñun démontré nañu ne daal que kuréel boobu kenn mënul ne danga ciy bokk ba pare continuer di sàmmonte sa diine parce que lañu ñu fay jëf yëpp dafa safaanoo ak li diine santaane ndax si suñu diine daal xaala laa la wax mooy li yàlla santaane xaala rasulullah yonent bi dig ne waaye ñoom nag dafa am leneen lu gëm loo xam ne daal daanaka soriantewul ak xeetu jaamu santaane mm. alors ba ñu feeñale seen mbóot yi nag ci la ñu porté plainte ki ñu porté plainte nag ancien ambassadeur Abdou Diouf waaye nag par pudeur morale parce que bàyyi na fi jabar bàyyi na fi ay doom ak yooyu te comme que génn na àdduna alors par pudeur morale mën nañoo lépp tur bi mm-hmm. waaye ñëpp xam nañ kan la waaye yàlla dogal nag procès boobu euh, bi muy laata ñëw ñun dañu indi firnde ci li formation yi doon wax naan yéen daal amu leen benn preuve Jamra dafa rëy làmmiñ nee nañ am nañ liste formation waaye comme que yàlla dimbali woon nañu ba ñu infiltré seen siège bi nekk ginnaaw assemblée digganteem ak lycée van ñu daal di am benn feuille de présence boo xam ne jënti nañ am ko ndax xam nga feuille de présence ni ko ñëpp xamee mooy rek kon bu rek bu syndicat yi amee seen réunion wala parti wala def seen bureau politique euh, dañu am benn feuille bu qu'on fait circuler ñi ñi ñi ko teewee ku nekk bi bind sa tur sa sant sa numéro téléphone jox sa morom ainsi de suite alors seen feuille de présence boobu nag ñoom ñu sàgganee ko ba am ci benn une liste de vingt cinq francs-maçons ñu multiplier ko en des milliers d' exemplaires ñuy tiñal ne dañuy fen dinañ xam ndax liste formation bi Jamra wax ne yore na ko ndax ay lépp la ñu tasaare ko ci euh, jox ko ay xale ñu yóbbu juma Alaaji Rawaan Ndey bi nekk euh, rue Blanchot beneen paquet bi ñu yóbbu ko juma Alaaji Yaxya Jóob bu Gueule Tapée mm-hmm. beneen paquet bi ñu yóbbu ko Grande Mosquée xale yóbbu woon nag ñu ne leen mm-hmm. euh, bu leen ko teel a joxe bàyyi leen bu ilimaan bi sëlmalee mm-hmm. paa yi commencé génn rek ngeen joxe ko mm-hmm. waaye daal ba ñu ne salaamaaleykum rek xale yi taxaw ci biti di joxe mm-hmm. paa yi naan eh jam na caaxaanul de liste yaa moom ku ku ku daal taf sa gémmiñ daal ne eh, diw ci la bokk diw awa ci la bokk diw député la xawla wala wata diw bokk ci këru diine sàngam la franc-maçon tiit nag jour prochain ah ñu toog ba dix heures Eh, gisuñu plaignant bi. Mhm. onze heures gisuñu bu bëgg a président tribunal bi bëgg a énervé tuuti ba yàgg benn avocat tubaab dugg. bu mhm. ñëpp xam. c'est un avocat français communiste franc-maçon. Mhm. ñu di wax maître Danon. daal di ñëw euh, fëgg si nopp euh, président tribunal bi am lu mu teg moom ba pare daal di retiré wu. mu demee nag président tribunal di jël kaddu daal di ne ah avocat bi doon wax ak ma daal moom mooy coordonner le pool des avocats du plaignant. nee na daal pour des raisons de sécurité à l'ordre public ak tamit am na kilifa yu ko ñaan njekk day kàcc rek kenn ñaanu ko njëkk <laughs> alors <laughs> alors nous avons décidé daal ñoom décidé nañu daal de retirer leur plainte alors président tribunal bi nekkoon nag par conséquent ñun tribunal de Dakar nous déclarons l'affaire opposant euh, Abdou Latif Gueye de Jamra et son excellence monsieur X parce que damay lépp tur bi ndax mhm. génn na àdduna kenn njabootam ñu fi mhm. alors nous déclarons cette affaire euh, Euh, de, de diffamation et d'injure euh, mm-hmm. tribunal bi toj. ak <laughs> ji allahu akbar di riir. président tribunal bi ne eh, fii fii du màggalu Touba du gàmmu Tivaouane. Ah. du jàpp dem leen évacuer la salle. gars yi ne ko boo yeboo nga évacuer salle islam am na ndom ba noppi. Mm-hmm. alors kooku dama ci taxawoon tuuti pour ñu xam ne. Mm-hmm. loolu moo ñu gën a yokk détermination nag. pour que ci xeex bi. tribunal bi def ko ONG. voilà pour gën a mën a combattre. d'accord. Euh, ya nga xam ne dafa safaanook suñuy jikko safaanook suñuy valeur combat bi ñu di ko yaatal nag ba dugal ci nag ginnaaw lobby formation yi commencé di attaquer les lobby LGBT après nag Jamra di gën di yaatu gën di yaatu ba euh, mujj gi ñu daal di dugg ci euh, lu ñuy wax médiation sociale ñu di sàkku ci ñun ñu leen taxaw bu fekkee dañu jàpp dañu nekk victime d'injustice ba gis nga les cas les plus récents mu di. Euh, jàmbaar yi golf. Euh, euh, les jàmbaar du golf nga xam ne mhm. am na ci quatre vingt treize ñàkk seen bakkan. Mhm. seen veuve yi. ñu constitué wu en collectif ñëw bind lettre Jamra mhm. mais daal ñu ngi topp seen ndàmpaay ay ati at mun ñu see jot. voilà gëstu ko ba am ay firnde yu wér ni Nations Unies jaay nañ pétrole Saddam Hussein di sooke woon guerre bi. jox ko benn kuréel bu ñuy wax CINU la commission d'indemnisation des Nations Unies mm. ñoo jaay ko sur les marchés internationaux ba collecté cinq cent milliards mm. séddale ko trente quatre pays yi nga xam ne yabaloon nañu ay contingent pour jàppale Koweït ak Arabie Saoudite bi Saddam bëggoon na annexe mm. alors cinq cent milliards yooyu dañ ko tasaare au niveau de trente quatre contingent ba fii may wax yow Sénégal si dërëm alors ba ma amee firnde yooyu nag ci laa bind président Macky Sall. président Macky boole ma ak euh, le le ministre des forces armées Augustin Tine. de travail moom indi ba ñu paree dossier ba migré vers la primature. le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne recevoir na ma ñeenti yoon. ñeenteelu séance de travail bi metti yoon lool parce que ñu ngi tàmbali dix huit heures une heure du matin. loolu yëpp ci mu di ma laaj ay firnde ci lii ana ay preuve ci euh, contingent ya demoon ñaata soldat sénégalais ñoo demoon yëpp ma jox ko mhm. mais surtout mu laaj ma résolution nationale mhm. bi firndaal ne xaalis ñëw na mhm. ma daal di la résolution mille quatre cent trente-trois ne ko xaalis ñëw na waaw ah, léegi nag il vous appartient à vous état donte la yéen fekku leen fi woon yéen waaye sur la base du principe de la continuité de l' état Eh, dafay tax seen ndodd ne ko euh, continuer le temps yaa ma ko gën a xam ma ne am na sax benn euh, ancien combat ndeysaan nee ma ah Guèye dama yàgg di dégg ci say revendication ci suñu dossier bi dégg hmm. baatu continuité de l'état waaw lan mooy continuité de l'état continuité de l'état daal ci baat yu gàtt masalan bi bi fi di jóge hmm. di jox Abdou Diouf lenge bor yi mu fi bàyyi day nekk boru Abdou Diouf mhm. ma ne ko Abdou Diouf ba mu demee bor yi mu fi bàyyi bor Abdoulaye Wade la ma ne Abdoulaye Wade ba muy dem itam bor mu fi bàyyi mhm. ak bor yi fi Abdou Diouf bàyyi ak bor yi fi Senghor bàyyi yëpp bo day gàllu ci loosu Macky Sall mhm. ma ne ko loolu mooy continuité de l'état alors bref euh, dossier ba avancé na lool voilà ba xëy na balaa yàgg président Macky dana ko lijjanti bon def na yeneen médiation sociale les sept cent travailleurs qui ont été licenciés à la Sénélec ba jamono Makhtar Cissé ba léegi ñu ngi ci négocier ñu di leen euh, réhabilité par euh, par par tranche ba léegi y a cinq cent trente six qui ont pu retrouver leur travail après trente cinq mois sans salaire voilà ensuite euh, yi si des moom c'est l'actualité le combat contre les dérives audiovisuelles mm-hmm. et cetera alors pour revenir à Latif Latif waaw donc la créé woon Jamra Euh, yàlla dogal nag mu am ku mu dajal de manière très fortuite koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk ay mission ci war a taxaw suñu valeur ak euh, vision euh, panafricaniste mu di Sidi Lamine Niass ñoom ñu ngi daje ci benn benn salle de rédaction mm-hmm. voilà ndax xam nga dafa amoon benn journal bu Ablaye Wade créé woon journal bi euh, ñu di wax Takkusaan alors si Lamine jamono yooyu euh, en quatre-vingt-deux amul woon journal mais chaque fois bu bëggee génne benn tribune ndax xam nga moom day jékki-jékki rek amee xadar rek dal ci kaw Abdou Diouf wala dal Senghor ci wàllu éducation ci wàllu ni mbay mi et bu bëggee génne benn contribution sous forme da jaar ci Latif Latif dem journal Takusaan daal di ko boole ak euh, ku ñuy wax Tidiane Kassé Tidiane Kassé c'est l'ancien directeur de publication de Walfadjri Tidiane Kassé nag daal di ko jàppale ñu réserver ko une page fii di la ñuy wax lu ko neex ñàkk régime bi lu ko neex xam nga tëjoon nañu ko ci kaso mu génnaat et cetera fii di nag daal di ne ah war nañu jëfee loolu Kocc Barma di wax naan kuy njàngaan ber sa daara moom tamit mu daal di am idée créé journalam mm-hmm. tax keroog maa ngi tooñ euh, Cheikh Niass mm-hmm. l'actuel directeur général du groupe mm-hmm. ma ne ko Cheikh boobu xale nga de waaye ma fat ma ma leeral la benn affaire mu ne ma ma ne ko yëg nga ne Walfadjri kenn créé wu ko Sénégal mu ne ma ah bon <laughs> loolu nu mu demee noonu ma ne ko ci euh, atuk 1983 euh, Latif dafa jot invitation ambassade Iran Sidi Lamine dem jot invitation. Hmm. parce que ñoom ñaar ñëpp ràññee ko woon nañu euh, comme quoi que dañuy yëngatu dans le mouvement islamique. Hmm. invitation bi dañ invité woon euh, fële ca euh, Freetown mooy capitale Sierra Leone ci benn symposium sur le le pèlerinage à la Mecque jafe-jafe yi ci pays africain yi am alors Sidi Lamine daal di ànd ak Amath waaye tamit daal di ànd ak Tidiane kafe bi mu la tudd léegi boobu wal fa ji jëñ alors ba ñu demee nag ci seen chambre d'hôtel bien euh, euh, Sidi Lamine daal di informe Tidiane kafe ne ko maak Latif daal ñu ngi doon waxtaan suñu benn projet de création de journal mm-hmm. dëgg la Latif am na journal bu ñu wax Jamra waaye man daal dama bëggoon créer euh, beneen journal daal boo xam ne daal arabisant yi. Mhm. parce que en fait euh, je rappelle que c'était son principal combat. Mhm. joxuñu leen gëdd bi ñu leen war a jox dama leen war a xeexal ndax arabisant yi dañ leen jàngi euh, Turquie euh, Libye Arabie Saoudite bu mhm. ñëwee du am débouché. liggéey da di tax. mu ngoog alors ñoom ñu débattre nag sur le titre du journal. alors si Lamine ne daal dama ko bëgg a tuddee Walfadjri la fi nekkoon non. la traduction française de Walfadjri mhm. nga tuddee ko ko pour nit ñi xam parce que boo nee Walfadjri nit ñi xam lu muy tekki mhm. te en français sa veut dire loroor loroor waaw fajar waaw maanaam bu fajar di xar mhm. les premières lueurs du soleil di génn ñu nekk ci débat boobu di werante mu ñu daal ñu coupé Tidiane Kassé coupé la poire en deux nga xam ne ni ñu def dañ koy tuddee Walfadjri en gros titre te en sous-titre def loroor loroor waaw <laughs> voilà moo tax nag journal bi dafa nekkoon wal fajiri loro alors journal ba daal di taxaw léegi nag ñoom ba conférence su temps ba jeexee ñu bisi il était question nag d' avoir des locaux mhm. alors comme que Latif journalam amul woon local mhm. Sidi Lamine tam il venait juste de créer son journal moom tam amul local ñu daal dem à la rue vingt cinq mhm. jamono boobu rue bu terrible Mm, trafic de drogue beeg. waaw ah, waaw prostitution bi. Eh, dafa terrible woon ba waa Médina seen bopp ñoo ko surnommé woon la rue sans loi. Mm. ah ndax police ñëw foo ñëw eh, taxaw sax ndax banditisme bi. ah oui ñoom voilà ñoom pour défier. Mm-hmm. la pègre médinoise la mafia médinoise ñu ñëw exprès. Mm. en en pleine rue euh, sans loi. Mm-hmm. loué fa benn bourse. Euh, mais moom la ñuy def la salle de rédaction de Jam et de Walfadjri hmm. alors ci la ñuy jël local bi nag o mu mu def benn cloison ci digg digg bi hmm. à gauche rédaction nu euh, euh, mu tuddati euh, Jamra ak beneen bi Walf Latif nekk dégg nga le directeur de publication beneen bi la rédaction du mensuel hmm. Walfadjri Latif nekk le premier rédacteur en chef dans ah. l'histoire de Walfadjri ah Cheikh Cheikh Niass ndeysaan ni ma yi nga ma wax histoire la de ma ne ko ah boobu xale bu tuuti nga yaa ngi école primaire wala wala boog juddoo <laughs> alors euh, léegi nag Latif di def la navette en tant que rédaction. Mm-hmm. bële daan corriger texte yi en tant que directeur de publication de mm-hmm. Jamra. Euh, beneen bi di coordonner euh, la rédaction en tant que directeur en chef. waaye nag dañ daan cotiser pour fay le loyer. d'accord ñoo ko bokk. loyer bi soixante mille francs la woon. Mm-hmm. waaye léegi PRD. balaa ñuy boucler les soixante mille francs fu ne la ñuy dugg. xanaa journal yi doxuñu woon. journal yi dox. waaye nag euh, euh, xam nga rek euh, sénégalais boobu amuñu woon la culture de la lecture et autres. intellectuels yi rek ñoo ko daan jënd. Mhm. alors te ki ñuy loué dafa xawoon na na xëy rek. maa ngi fàttaliku am na weer boo xam ne si lan ak latif dañu kórkóri kórkóri ci vente yi cent franc cent franc cent franc ba dajale trente mille ne ko daal am ñu avancé. cent franc lañ doon jaayee journaux yi. waaw <laughs> euh, ñu ne ko daal ñu avance la waa ji ne du ci dal na soixante yu mat rek ñu yéego ko wàcc ba soixante mille franc yi ma ñu daal di fay loyer boobu ma ne ko ba mu ma ne ko nag yooyu dem ba yàgg nag. Mhm. Latif nag comme que il était trop pris par ses actions humanitaires yi ma la junjee léegi. Mhm. Euh, mu beddeeku. Hmm. Euh, dem dégg nga lijjanti son statut son son euh, son statut de d' ONG. Hmm. parce que bi ñuy bi nekkee journal dem na ba journal yi mënatul dékku toutes nos activités. Hmm. Abdou Diouf daal di ñu boole ak ministre des affaires étrangères ñu dem signé teg ñoom accord de siège. daal am un statut d' ONG. daal Euh, papa yoon yi tamit nee na dafa bëgg ndax de presse alors noonu la def ba am rajo am journal hmm. quotidien ba tey télévision ba mu nekk un des plus prestigieux groupes de presse hmm. alors léegi nag lu euh, mu tuddee kii l'Abdoulatif euh, nag disons que nee na yi ko gën a marqué hmm. dans sa carrière de journaliste moo di sa rencontre euh, avec Ami Cabral ou euh, PAIGC le grand révolutionnaire de du combat pour la libération de la Guinée-Bissau mhm. ak euh, la grande rencontre qu'il a eue au domicile privé de Ayatollah Khomeini à Jah Jah Jamran à Téhéran mhm. mu jël ay photos yu rafet avec le la Khomeini ñaar yooyu daal def ko gënoon a marqué mhm. waaye daf ko créer ay problème parce que bi mu ñibbisee dañ ko taxé d'être un un intégriste islamiste. Hmm. waaw simplement rencontré na. ndax Iran ba mu de Iran ba mu demoon hmm. te Latif dafa pour couvrir euh, la guerre Iran Irak. Hmm. Euh, pour les besoins du du magazine panafricain bi ma la tuddal léegi. bref euh, ñu woo ko ko police gendarmerie et tout ça. alors nag bi ñu gisee nekk y avait pas de quoi un chat. alors Latif daal di dellu ci ay activités alors bi mu nag il a été le cofondateur de la fédération sénégalaise bi regroupé toutes les ONG qui luttent contre la drogue ñu tuddee ko le fonds SOLUD le la fédération sénégalaise des ONG de lutte contre la drogue hmm. après nag foofu la commencé nag vraiment di di di ràññeeku bu baax ci wàllu xeexum drogue euh, ba benn ONG française bu mag a mag a mag ñuy wax IFLD institut francophone de lutte contre la drogue mmh. sur financement de la CEE e, euh, qui s'appelle aujourd'hui l'UE l'Union européenne mhm. mais à l'époque ça s'appelait CE e, la communauté économique euh, européenne mhm. daa di ko choix daa di choisir pour organiser ici à Dakar le premier séminaire sous-régional de formation du personnel administratif de lutte contre la drogue alors ñu dem informer le président Abdou Diouf. Mm. mu ñu boole avec euh, ministre de la santé. Mm. Euh, Marie Sarr Mbodj. Mm. ñu daal di hôtel Teranga def fi symposium bu mag qui regroupé des Guinéens des chercheurs. maliens mauritaniens toute la sous-région francophone. Mm-hmm. pendant une semaine Dakar était la capitale. Euh, sous-régional sous formation du personnel administratif de lutte contre la drogue. alors naka noonu nag euh, ñu egg ci euh, fin des années quatre-vingt-dix. donc euh, ba ñu ñëwee ba mars quatre-vingt ba ba ñu ñëwee fin quatre-vingt-dix-neuf. nous avons été approchés par la CA 2000 donc euh, la coalition pour l'alternance de 2000 waaw hmm. qui se battait pour. alternance am et qui avait comme euh, <clears throat> commandant en chef maître Abdoulaye Wade mhm. alors ñoom Abdoulaye Bathily bu LDMPT ngemb ko ànd mhm. seeg euh, ndem si yàlla Sissoko bu PIT mhm. ak euh, kii nu ñu tuddati Landing bu ànd jëf voilà Jamra ñëw nag lors de bi porté sur les fonds baptismaux la CA 2000 à la à Indépendance Jamra fa ñëwee intégré ko bokk ci CA 2000 bi alors c'était euh, la première descente dans l'arène politique mm. de Jamra alors waaye nag ñun on a dit au leader de la CA 2000 que ñun euh, pour le premier tour nous comptons euh, soutenir le candidat HDP Garab gi mm. mu di ngeen si àll le professeur Iba Der Thiam parce que on l'a fait exprès mm. mu di euh, bii nit ñi gisee ne jamono yi fréquenté la CA2000. ils hmm. sont des politiciens aguerris des des anciens combattants de l'arène politique. Hmm. dégg nañ wax ñu ñaaw junne junne junne dans dans dans la presse. ba am sa benn mbokk journaliste euh, génn na àdduna léegi mën nañ bañ a. qui nous a traité de de de de chanteur. Hmm. comme quoi que Jamra dafay def le tour de leaders de parti. c'était euh, couvert par la presse à chaque étape. Hmm. ñu ne Jamra daal dafa bëgg a wu léegi nag Jamra euh, va faire précéder cela d'un round-up maanaam dañuy seeti euh, huit candidats yi. Hmm. pour la présidentielle de deux mille. ci nekk Jamra jox la sa plateforme composée de vingt points. Point numéro un, criminalisation du délit de trafic de drogue. Hmm. criminalisation du viol. Hmm. Numéro trois, criminalisation de l'homosexualité. Mmh. Numéro quatre, euh, modernisation et financement euh, de cette modernisation des des daara des hmm. écoles coraniques ainsi de suite ba mu nekk. kon yéen da ngeen ci politique bi pour que seen ay combat ñu mun ko officialiser. maanaam ñu appliquer ko. exactement d'accord parce que ndeysaan li a wax sax daf may fàttali bi ñuy tàggoo. Mhm. Euh, kilifa diine yi pour les informer de notre nouvelle démarche. Mhm. consistant à descendre dans l'arène politique. Mhm. xam on a fait Touba Tivaouane Ndiass et cetera. mais l'étape la plus émouvante et qui rejoint le constat bi nga def mooy bi ñu waree euh, rencontrer le défunt xalif des Layènes Mame Alassane Laye moom daal mu ne ah dégg naa ci presse bi daal jàmm rek nga dugg ci lank bi te yéen waa te ngeen continuer rek ngeen nekkoon ci daara ji rek di xeex yu bon yi ak yooyu. Mm-hmm. bi ko Latif démontré ni mm-hmm. que en réalité am na ay combat yoo xam ne bu ñu demee ba am dos au mur. Mm-hmm. ko eggali lu dul une action politique. état rek moo ko mën. mu daan ah kon yéen c'est le khalife des Layènes qui mu ne ñu daal kon yéen ci ci ni ma ko dégg. da ngeen bëgg a wàcc ci langue politique bi jëfandikoo politique. Mhm. comme caade pour liggéeyal diine ji mhm. ak ñëpp ci man ñi latif ne ko waaw mu ne ah kon nag bu dee loolu ànd na ci. Mhm. alors donc euh, bi premier tour ba jàll Iba Der euh, jàllul euh, au deuxième tour parce que dañu signé ñëwoon benn accord électoral ak Iba Der pour que bu jàllul jàmm def report de voix. sur le candidat de l'opposition le mieux placé. buy jàll lu taxoon ngeen tànn professeur Iba Der Thiam peut-être moom moo gënoon ànd si seen euh, proposition yi voilà d'accord euh, pour deux raisons hmm. d'abord c'était pour démentir les mauvaises langues qui disaient d'ailleurs sax euh, joxoon naa ko sànq waaye dama ko hmm. que ni Latif ni Jamra di def hmm. yore sa plateforme di rencontrer successivement et de manière fortement médiatisée les différents candidats. parce que seeti nañ Mariam Wane lii seeti eh, Mademba Sock seeti Moustapha Niass Djibo Leyti Ka Abdoulaye Wade et cetera Iba Der et cetera alors ñu bari nee nañ lii jam de def de la surenchère hmm. parce que dafa bëgg gis candidat bi gën a yor xaalis te dégg nañ ne sax Moustapha Niass jox na leen quatre quatre ak cent millions woo hmm. mën a désinformation bi calomnie bi ñu bari ki ne pouvait pas góobee Jamra ci affaire boobu la ñu profité woon di yàq suñu der rek hmm. Eh, léegi nag pour démentir tout ça ñu tànn candidat bi gën a lool. <laughs> ci witi. buy mhm. Iba Der. Mhm. ñu def alliance ak moom. Mhm. deuxième raison bi tax ñu tànn Iba c'était le seul qui avait accepté les vingt points de notre plateforme. d'accord sans changer une virgule. kon moom bu falu woon li ngeen wax yépp da koy def. yëpp nee na e bu falu da koy waxante d'accord waaye tous les autres candidats ku nekk naan waaw man d'accord naa ci waaye bii d'accord ma ci ba voilà alors donc euh, moom jàllul au premier tour mm-hmm. bien que biñ koy jàpp ah, on se faisait pas d'illusion xamoon na ne di jàll mm-hmm. parce que moom yàggul woon ci bi et c'était soutien doublement symbolique pour mm-hmm. démentir les mauvaises langues qui disaient que Diomaye faisait cela pour faire chanter les libère le parti. C'était euh, symbolique parce que c'était le seul candidat avec qui on partageait beaucoup de valeurs sociales, euh, religieuses, etc. Mhm. alors Ablaye Wade Dialle euh, euh, parce que dañ doon ànd ak moom à nos propres frais. Mhm. Ah ah, parce que plusieurs fois son directeur de campagne a voulu ñu donner de l' argent. Mhm. waaye nag toujours ñu ne ñu ne ko non gënu leen ñu Sénégal. moo tax toute la campagne électorale de l'an 2000 ñun nous l'avons menée à nos propres frais. dërëmu hmm. Ablaye Wade jotuñu ko mooy ñii di ñu dégg. alors euh, yàlla dogal nag Ablaye Wade jàll. la respecté ses engagements. Hmm. parce que dafa waxoon ne bu jàllee tous ses alliés dina responsabiliser. Hmm. voilà fa la nommé dans ce ministre de l'urbanisme Ablaye Bathily nekk ministre euh, Landing Savané également alors Ibadet Thiam euh, comme que ci deuxième bi ñun dañu àndoon ak moom jàppale Ablaye Wade euh, ñu ko vice président assemblée nationale Latif Gueye ambassadeur itinérant d'abord et avant de devenir plus tard vice président de l'assemblée nationale Mame Makhtar Gueye ñu nommé ko président du conseil d'administration du centre international du commerce extérieur ainsi de suite ainsi de suite Cheikh Abdou Cissé Cheikh Abdoulaye Dièye le défunt père de Cheikh Bamba Dièye le fondateur de euh, euh, mooy borom allah wahidun ñu mhm. parti bi tuddati sax. FSDBJ. FSDBJ alors Abdoulaye Wade tam ma ne ko président conseil d' administration voilà ñu ànd ak moom di liggéey voilà léegi nag euh, comme il fallait s'y attendre la proximité relative avec le chef de l' État avait beaucoup de gens. Euh, des des des membres fondateurs PDS. Hmm. parce que dañu gis Ablaye Wade di ko yónni ci euh, Étienne Eyadema euh, le président togolais di ko yónni auprès d'autres illustres chefs d'État et souverains à travers le monde alors qu'il n'était que comme le disait cet ambassadeur itinérant alors Ablaye Wade dem ba am confiance ci Latif daal di créer un projet qui lui a toujours tenu à cœur. Hmm. mu di une organisation humanitaire panafricaine hmm. ñu tuddee ko les trois A AAA l'Africaine Afrique alors daal di ko confirmatif léegi les comploteurs du palais jógaat de l'activisme pour ñu bañ a jot suñu budget hmm. de fonctionnement alors de sorte que chaque fois bu Latif c'est Ablaye Wade mu ne ko mais jotagoo ko ba léegi hmm. pour changer donner des instructions à un tel un tel attends ba ma jógee voyage ñu dawloo ñu six c'était une manière euh, un peu euh, euh, indélicate d'amener le président à, au constat que ndekete ñii ba ma leen joxee cette structure là euh, c'est des incapables ils n'ont pas fait leur preuve loolu la ñu bëggoon hmm. moo tax nañu bloqué budget bi Abdoulaye Wade nag ku baax la waaye nag des fois il n'avait pas les coups de franche parce qu'il hmm. était entouré par des caïmans ah léegi nag pour les démarrer qu'est-ce qu'on a fait pour leur montrer que avec ou sans l'appui de l'État on peut faire fonctionner notre structure. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait ñu jël le carnet d'adresse de Jamra. D'accord. nos nos nos partenaires traditionnels. Hmm. ñu activer leen pour nouer des partenariats avec eux afin de pouvoir montrer nos preuves fii ci Sénégal ci wàllu humanitaire. Hmm. Euh, pour ñi ko fekkeewul lan moo nekkoon mission wu euh, organisation boobu l'Afrique aide l'Afrique. voilà mission euh, mooy li Jamra doon liggéey la lutte contre la gauche la protection mmh. des couches ak tamit l'assistance euh, aux familles euh, déshéritées bref euh, lépp loo xam ne humanitaire la mm-hmm. te Jamra daan ko def Ablaye nee nag dafa bëgg ñu étendre ko au plan continental waa tuddee nag l'Afrique aide l'Afrique parce que dina rafetul tout le temps latif l'Afrique di tendre la main di def de la mendicité internationale alors que nous pouvons nous rendre aider entre nous-mêmes africains au plan humanitaire mm. alors loolu moo doon objectif bi donc c'était de promouvoir euh, la solidarité et l'entraide entre africains mm-hmm. ñu dénk ko Latif donc ñëlee mu metti leen ñu def lu ne pour de nu discréditer bloquer suñu budget mm. ñu daal di def benn astuce nag mu bett leen ñoom ñëpp mooy nous avons noué à l'insu même de, de, des comploteurs, hmm. des partenariats avec des organisations humanitaires de grande notoriété, de que Médecins sans frontières ou Bernard Kouchner. Hmm. Nous noué, partenariat avec la fondation Emmaüs, du à Abbé Pierre, etc. ñu ne leen yéen am na dawaan liggéey ak yéen léegi état du Sénégal le président Abdoulaye Wade daf ñu dénk panafricaine qui, qui a les mêmes orientations humanitaires que Djamra. Donc, il y a des ennemis de Djamra qui sont en train de faire des pieds et des mains pour nous baigner sur le budget, bien que le président Djohan accorde. Et ils veulent nous désavouer aux yeux de l'opinion comme nous sommes des incapables. Nous voulons nous nous nous réorienter vers l'Afrique et l'Afrique. Voilà, c'est aussi simple que ça. <laughs> Alors, maintenant, c'est une première, première action. mooy euh, la Casamance. Mhm. parce que Casamance eh bien euh, guerre bi dafa créer beaucoup d'orphelins et de veuves orphelins yi nag mhm. fa ñu daan jànge ak dëkkuwaay yi ne dafa sori ñoom dañu daan wàcc midi dox deux trois kilomètres añ wala doxaat doxaat deux trois kilomètres alors ñoom bu ñu gontoo ils étaient tellement que les cours de d' midi xale yu bëri doon daawuñu ci xam dara dañuy nelaw classe léegi nag il fallait trouver un système de réfectoire mhm. alors ci lañ contact et euh, euh, des organisations humanitaires européennes qui nous ont ci wàllu dund ci wàllu fourniture scolaire ñu daal di ko yóbbu Casamance Adé Diamacoune était tellement content que j'ai publié il y a deux mois boo duggee sama page Facebook di ko fa gis parce que je l'ai tout effacé mhm. la lettre manuscrite de Abbé Diamacoune avec son cachet mhm. en tant que président du MFDC et en tant que chef d'église di gërëm Latif li mhm. lii nga defal waa Casamance gisuma kenn kenn ci milieu politique du Sénégal wala de la société civile ku ñu ko mos a defal mhm. xale yaa ngi jàngi xale yaa ngi lekk ba suur laajatul ñuy wàcc mi di dem añuy waaye sur place la ñu am seen réfectoire ak yëpp te yow yaa leen ko defal dans le cadre de ton organisation humanitaire hmm. mais ko bëgg naa sax dégg nga ci prochaine négociation de paix yi impliqué wu ci hmm. alors j'ai mis également euh, sur Facebook hmm. ni Latif matérialiser le vœu de Abbé Diamacoune parce que on est allé voir euh, son rival euh, qui patron de l'aile militaire du Badji c'est le patron de Atika et comme que depuis vingt ans jubóowul ak euh, Abdou Diamacoune qui est le patron de l'aile politique du MFDC euh, ma ne Latif daal pour matérialiser ce que Diamacoune a dit il faut d'abord réconcilier les leaders du mouvement indépendantiste pour convaincre leen ne daal que lii ngeen di laaj mënul ne parce que Casamance Sénégal la bokk te même bu dul dara sax euh, vous avez des revendications économiques c'est tout à fait légitime l'État peut les résoudre waaye euh, nag il faut que le mouvement indépendantiste parle d'une seule et unique parce que yow jamakun mënoo wax jaar ni Sidi Badji wax jaar ne hmm. et effectivement il en a toujours été ainsi chaque fois bu état du Sénégal ne waaw guerre bi metti na Casamance xaaral ma dem waxtaan ak jamakun le leader le plus en vue du MFDC waaye saa wu état waxtaan ak moom bay bëgg a boucler hmm. euh, sama rival Sidi Badji def communiqué mais ah bon dangeen ngeen ma yi teg fee jama ku ngeen di waxal on va voir loolu lañ mën ci d'accord ak moom nous ça ne sa engage pas nous l'aile militaire ci Atika négociation yàqu su état toogaatee quelques mois ne bon voilà maintenant je vais avec Sidi Badji bu waxtaanee ba yëf yi aw yoon bay bëgg a sotti jama ku taxaw fële moom itam mais ah bon yéen daal kii ngeen gën a man Mm. on va voir ndax celui qui dirige le mouvement indépendantiste. Mm. aussi seulement daal di ci xëpp suuf mu yàqu. nawet boobu nag sax duré des années. la ci nekkoon nag il faut que le mouvement indépendantiste parle d'une seule et unique voilà ce qui explique notre voyage en Casamance en mars deux mille. Euh, toutes les photos sont sur ma page Facebook. la réussit la prouesse. d'avoir réconcilié deux la presse internationale parce que TV5 dafa woon ak euh, RFI et d'autres euh, organes de presse d'avoir réconcilié mm-hmm. les deux grands rivaux du mouvement indépendantiste mu di Diamacoune ak Sidi Badji alors euh, pour ce faire mm-hmm. il a fallu faire preuve de, diplomatie et d'astuce xam nga loolu la ci def mm-hmm. comme xam na ne Sidi Badji c'est un fervent amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa daf ko seeti waar ko waaraate ko génn ay hadiis gi alxuraan ne ko euh, yow yaa mag tàbbi jamakul te prophète bi li mu wax mhm. ci ay jullit yu féewaloo nee jullit bu ñu féewaloo bu ëppee ñetti fan rek bés bu ne malaaka ngi leen di bindal bàkkaar ndax suñu borom moo ci téeréem bu tedd bi innamal mu'minuuna ikhwa ñu mhm. yëpp ay mbokk lañ mhm. alors mu ne ko yow laa bëgg nga def les premiers pas daal di ko bindal ay aaya génn alxuraan ba ndeysaan si di si euh, les ku commencé à couler quoi mhm. alors Latif convaincre ko bi ko convaincre nag mu téye ko ci loxo ñu ànd di traverser la grande place publique pour aller à l'église bi nga xam ne fa la bureau abbé Diamacoune nekk. Mhm. presse bi topp leen. waaw fu Latif jëm ak Sidi Badji gars yi naan Diamacoune la ñuy seet ñu ne non non li mënul ne. Diamacoune Sidi Badji ñuy toog benn. mënuñoo toog laalante loxo. loolu mënul ah. Mhm. alors mu naan dana dem dana dugg du dugg ñuy ànd di dox rek ba ne dagaj ci biir église. presse bi ñëw nag photographie alors photo bi Latif jël taxaw ci digg bi. Mhm. jël euh, euh, le bras droit de Sidi Bati. Mhm. ak le l'autre main jama euh, ko yëkkati ko ni en signe de victoire. Mhm, mhm. photo boobu mu ngi sama page. Sidi Lamine ak Sidi Badji ak Diamacoune bi ñuy accoladante tamit. à la grande surprise du monde entier. Latif moo ko liggéey Jamra moo ko liggéey. Ablaye Wade était tellement content. en tant que chef d'État. Dakar la tollu envoyé ñu benn téléfax. jaarale ko ci gouvernance di féliciter Latif parce que mhm. ñun mission bi on l'a préparée de manière secrète mhm. d'accord kenn yëgu alors évidemment comme il fallait s'y attendre ndam loolu ñu amoon mhm. dans la réconciliation des leaders du mouvement indépendantiste mm -hmm. pour que pour permettre à d'avoir un seul et interlocuteur mm -hmm. parce que ku nekk da nga doon tiire jëm sa côté naan mana mana mana alors ça a eu tellement de succès et évidemment ça a ça crée des de dents. o au niveau de ces prétendus monsieur Casamance ña daan ña daan nax Ablaye Wade hmm. mu di leen jox de mallettes d'argent des dizaines de millions naan waaw xam nga indépendance si rek au fond c'est c'est de l'argent qu'ils veulent eh, eh, voilà defe joxe rek voilà les les coupeurs de route la les attaques à main armée dana wàññeeku parce que lii rek la yëpp yi la bu ñu leen Ablaye Wade joxee d'argent yi hmm. ñu détourné moitié bi yóbbu une portion congrue neexalee ko leader indépendantiste hmm. ñooñu la seen marché jëkk a yàqu. ñeneen ñi nga xam ne seen marché yàqu na mooy trafiquant yamba yi ça récemment bi il y a un mois. Hmm. bi armée Sénégal dafay descente musclé hmm. foofu gis nañ. ñu bari lañ jàpp effectivement. voilà yëpp lakk nañ ko donc ñooñu tam seen affaire yàqu. parce qu'ils avaient transformé certaines parties de la Casamance mmh. en des zones de non-droit. Hmm. alors loolu yëpp réconciliation Diamacoune et Siri hmm. euh, bi nga xam ne moo ko Jamram ak Latif Gueye ñoo ko hmm. alors réconciliation bi créé à Latif beaucoup d'autres ennemis alors ba tax on a vu la suite voilà yàq bon dans les deux camps ku nekk dellu nga waat sa côté daañu neutralisé wu. alors donc euh, euh, loolu moo nekk euh, l' action. Mhm. la plus éclatante. de l' organisation humanitaire africaine de l' Afrique. Mhm. alors maintenant période boobu en deux mille deux les malades sida n'étaient pas encore pris en charge par l' état du Sénégal comme mhm. c' est le cas aujourd'hui boo sida. antirétroviraux yi lay faj parce que ñëpp xam nañ ne jàngoro la bu dul wér kon ARV l'abréviation eh, de antirétroviraux mm-hmm. seen rôle moo di de créer une thérapie pour wàññi l'invasion du virus dans l'organisme waaye mënu éradiquer totalement mm-hmm. daf koy freiner ndax c'est une maladie bu terrible Euh, à titre d' exemple mas naa dégg benn euh, microbiologiste joxe ci benn analogie bu bu bu pertinente. Mhm. nee na daal méthode d' du virus du sida nañ ne rek ñaari dëkk nekk en conflit mhm. militaire benn dëkk bi jóg di attaqué ay cibles stratégiques di bombardé ay aéroport ak yu demee noonu waaye keneen ki gën a njàccaar wàcce cible stratégique économique industrielle yëpp xam nga lu mu def. Mhm. nga boo bombardé caserne bi. Mhm. kan mooy défendre boobu. <laughs> kenn mu ne ma nag mu ne ah, ma mu ne virus noonu lay def dafay bàyyi ay feebaru estomac yeeg feebaru attaqué par dégg yëpp daf koy bàyyi day dem attaquer le système immunitaire. Hmm. bu ko attaqué nag. loolu la waral sida euh, ñu ngi ko tuddee le provocateur de maladie euh, opportuniste bu xasee ba yàq système immunitaire bi feer bu sew bu gën a ñàkk fayda si bureau sojot mën na laa rey mm-hmm. bref euh, état daawul jàppale les malades pour l'acquisition euh, du vaccin euh, nest pas des des des antirétroviraux. ba mm-hmm. ba tax na boo feebaree jàngoro jooju. yaatoo ay mbokk yoo xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw. Mm-hmm. maanaam day taal ñi ci bari faatu nañ ci. Latif Diop nag ne on va trouver un moyen pour malade mën a am gratuitement mm-hmm. les antirétroviraux. Mm-hmm. les comploteurs du palais seen xol di gën a bon. mais ah ils vont pas réussir. donc sans un de l'État. Latif dem contacter ji des euh, des euh, euh, des Euh, de fonds suisse ñooñu mettre ñu en pharmaceutique humanitaire mhm. di nekk France ñooñu daal di ñu jox les antirétroviraux sans je répète sans un de l'État du Sénégal mhm. vraiment ak comploteur yi doon wax naan état bi dafa jox Latif mu jëndi garab sida Latif jaay ko alors ba antirétroviraux yi ñëwee te ñu ngi koy ñaanal gudd fan Latif ki mu njëkk woo moo di le la ministre de la santé Eva Marie Coll Seck mm-hmm. Latif ko yàgg naa dégg ngay jàmbat ñàkkum antirétroviraux yi parce que maladie yi ñu ci bari seen loxo jotu seen ginnaaw euh, te état budgéti wu budgétisé wu ko dans le budget général waaye sa njaqare yëpp saafara wu ministre de la santé Eva Marie Coll Seck ne ko ah bon ah yow sama càmm yi yow ma bëgg réserver comme surprise mm-hmm. na ko non seulement li nga doon jàmbat mais pendant trois mois yaa ngi am ay crainte mm-hmm. pour dimbali ñi nga xam ne dañu jànkoonteeg feebar non seulement loolu saafaraal dañ ko ñun Jamra ak euh, l'Afrique et l'Afrique waaye couvrir nañu say bés ba ba fin décembre Awa mm-hmm. Marie Coll ne ah lii de xéwal xaaral ma yónni sama directeur de cabinet mu ñëw jël fii Euh, livraison la du ne ko déedéet dañ koy médiatiser mhm. pas médiatiser ko pour faire euh, de la fanfaronnade mhm. waaye dañ koy médiatiser pour que ñi ñi ko may mhm. gratuitement xam ne la ñu ñu jox ah xam ne la ñu jox joxe lañ ko man nii maa convoqué presse bi alors ñi ngi defee cérémonie bi au ministère de de la santé au building administratif télévision yëpp teew Euh, euh, Latif def discours euh, Eva Marie Coll Sam def discours de remerciement ñu jox ko gratuitement une valeur de deux cent cinquante millions d'antirétroviraux mu daal di mu couvrir seen ba fin d'année ba mu am lu de ñu daal di ko delloo ci suñu locaux yi yi nekkoon fii immeuble Boissé Pala te jàkkaarloog palais de la République waaye ba presse bi médiatique don bi Latif ak Jamra ak l'Afrique et de l'Afrique def au profit de l'état du Sénégal te dërëmu état Sénégal dugg bi ko presse bi médiatisé le chef du service des maladies infectieuses bu hôpital Fann le docteur Salif Sow mhm. daa di woo Latif waaye xaritam la woon nag mhm. ne waa Latif yow da def euh, service camarade gaa lu tax mu ne ah yaa ngi beral loxo suñu suñu jigéen ji kat Eva Marie Coll te man aussi c'est des problèmes mm. parce que euh, fii à l'hôpital Fann euh, service des maladies infectieuses am naa des personnes du troisième âge mm. qui sont confrontées à des problèmes de tuberculose des problèmes de méningite et la ne ko nag li ma defee ci don yi ma defal à l'état du Sénégal mm-hmm. te dërëmu état dugg ci mm-hmm. ay antirétroviraux rek la mm. amul garabu méningite ak tuberculose mu ne waaye c'est peu faire mooy le stock restant d'antirétroviraux ARV dinaa waxtaan la centrale pharmaceutique humanitaire ndax mën nañ la mën naa leen ko retourner ñu jox ma en échange son équivalent euh, en médicament contre la tuberculose et la méningite docteur Saliou ne ko ah loolu bu ma ne dana baax man nii maa euh, euh, kii nu mu tuddati de de l'Afrique et l'Afrique euh, ñu dem aéroport ñu livré leen ko par Air France mm-hmm. affaire ba dem centrale pharmaceutique humanitaire jox colis antirétroviraux yi xool valeur bi convertir ñu ko en médicament contre la tuberculose et la méningite daal ñu ko retourné waat mm-hmm. après nag ñu daal di woo docteur ne ko sa aajo faju na Euh, antirétroviraux yi ñu ci amoon. Mhm. delloo nañ ko fournisseur bi reconvertir na ko tax ñëw ci valeur équivalente bi ay médicaments yi nga soxla muy tuberculose ak méningite c'est-à-dire kontaan ne ah kon day maa ngi ñëw jënd ko la fi ne ko déedéet dañ koy médiatiser waaw pour que ñi nga xam ne ñooy suñu bailleurs de fonds mhm. ils sont des organismes humanitaires qui font de la philanthropie ñoo xam ne la ñuy jox jox nañ ko ña ko yelloon mu ne ko amul problème man nii a oowaat presse bi ñu def discours def cérémonie de don ñu jox leen ko les comploteurs du palais bi ñu gisee ce succès éclatant xam nga ñu dem wax Ablaye Wade mm-hmm. Ablaye Wade nag ndeysaan ku baax la waaye malheureusement benn nopp la mm. ne ko Latif dafa jël antirétroviraux yi eh, jaay ko bitim réew mm. te fekk échange de marchandise la. Mhm. allah nag benn nopp la jox rek daal di limogé Latif. Mhm. rek machine judiciaire bi enclenché wu rek ñu arrêté ko ñu jàpp ko. heureusement j'avais gardé parce que Latif est un peu désordonné en matière de gestion de documents administratifs. Mhm. heureusement j'avais tout gardé. les lettres les correspondances ak bailleurs de fonds yi may garab yi. ak correspondance bi ñu entre Latif Eva Marie Coll. donc bañu ko jox gratuitement mm. te dërëmu état dugg ci mm. la desoon ci garab yi ñu delloo ko France mm. Air France ñu retourné ñu ko euh, sous forme de médicaments contre la tuberculose et la méningite toutes ces correspondances là fax reçu tout ñu dajale yëpp mais surtout ñu daal di génne l'accord de siège alors bi ñu demee ba nga xam ne preuve yooyu yëpp indi nañ ko mm-hmm. wane e échange de marchandise la mm-hmm. comploteurs yi xam nga échoué nañ ñu ne Latif day génn prison suba ñëpp kontaan xam nga lu ñu def. Hmm. ñu def lu salte dem dal indi la notion de trafic douanier. Hmm. c'est-à-dire daal ne waaw d'accord euh, il n'a pas vendu. waaye ba mu ko fiy dugal fayul douane. Hmm. <coughs> ñu téyewaat la ci prison. waaye su ko ñu xam ne jàmm la du ñooy cuune de. ma delluwaat ci suñu euh, documentation yi. génne la compte siège. signé entre l'Afrique et l'Afrique et l'État du Sénégal. donc mhm. tey euh, l'Afrique dafa am statut d'ONG panafricaine. Mhm. xam nga ONG même une ONG nationale. Mhm. balaa ngay am droit am ay activités dañuy da ngay signanteeg le pays d'accueil un accord de siège accord de siège boobu maa ngi ko gardé woon. maladi daw seeti yàlla na ko yàlla yërëm suñu avocat maître Khassim mu ne ma mu ne ma Matar gars yi say nañ de. ñu demee ba amatuñu argument ba daan bu ma ko suuf mhm. sur la vente te démontré ngeen la ne vente amul échange de marchandise la léegi il s'approche sur le délit douanier ñi ñooy saay-saay mhm. ma ne ko dinañu daanuwaat nag mu ne ma rek ma daal di génnaat siège bi effectivement article six wax na ni ci accord de siège bi mhm. l'Afrique aide l'Afrique organisation humanitaire panafricaine a une personnalité juridique qui lui permet d'ester en justice mm-hmm. et d'acquérir des biens mobiliers et immobiliers mm-hmm. en toute franchise des droits de taxe et de douane. Mm-hmm. loolu koy leer na. leer na nañ ñeenti simili moo ñu desee. Xaadim Touré ne ma. waaw mu ne ma li li li yow mu ne woon. ma ne ko Latif daf ko réeraloon waaye ko mu nekk nii problème bi jë. ci gàttal. loolu daal la ñuy yóbbu à la cour d' appel. waaw waa ji xool ko ndongo. day ne ne kii tooñ nañ doomu jàmbur. donc tout ce complot là. waaw dégg nga pour soxor. alors bref mu jógee Latif. y' a même pas eu de procès. Mhm. dañ ko defal benn benn total. waaw mu génn. parce que yëpp ay kàcc loon alors bref. Euh, mission yooyu yëpp yooyu euh, yëpp Latif réalisé na ko ak Jamra ak Afrique Aide Afrique waaye Latif mooma 2008 euh, juróom-benn fanweeru avril si la génn àdduna ñaari simili yi des dama bëgg juste très rapidement nga ñëw ci ko àdduna Latif ak yéen li ngeen ci jàpp ñaari simili moo ñu desee pas plus. waaw ndeysaan eh. comme que nag jaam bi ak yeneen yàlla dogaloon. Mm. yàlla dogal nag ñu invité woon ko benn gàmmu mm. foofu sa Tambacounda. dans la nuit du 5 au 6 avril 2008. Mm-hmm. ma fi le 5 jaar kër ga fekk ma fii ci Yoff tàggu ma. Mm-hmm. ma ne ko mais gis nga heure bi jot. am ba c'est des centaines de eh, guddi gi ci yoon bi laa ci fekk et les routes sont mal éclairées. mu ne woo oh, garaawul mu ne ko laaj bi dëgër bopp pas bi tere na la voyage guddi. waaye ndeysaan fekk le destin était déjà fixé. alors euh, dès le lendemain du 6 avril le matin ma jot euh, fil du commandant de brigade de la zone ma frère Guèye frère Latif ma ne ko waaw mu ne ma bon malheureusement il a eu un accident ma ne ko ko lu mu mbëkkanteel oto mu ne ma de lu mu mbëkkanteel garab mu ne ma déedéet ma ne ko waa kon loolu lan la mu ne ah, en tout cas ils sont en train de faire les constats xam naa la la famille sera euh, informée hmm. noonu daal Latif euh, euh, wuy jee boromam hmm. moo tax nag li sëriñ Daara waxoon keroog ba mu yebalee délégation sa dëj ba dafa ne maa ngi masalu njaboot gi ci turu waa Touba waaye Latif na seen xol sedd ndax ay fanam yi mu dund ci àdduna gàtt na lool waaye ay jëfam yaatu na lool. Mhm. voilà kon nag loolu soxna Faat. waaw mooy tënku jaar jaaru Latif waaye bàyyi na fi ñaari livre. Mhm. yoo xam ne mën nañ di ko fàttalikoo benn bi ko tuddee le géew. Mhm. donc euh, benn système d'accueil et de commande. beneen bi ñu tuddee ko le tunnel de lumière mu ngi ko bindee ci biir kaso bi di ko coopérateur yi euh, euh, lalale pexe maa ngi fàttaliku ne itam ci les. Euh, de, de, titulaire du, du grade de chevalier de l'ordre national du Lion. Mm -hmm. Euh, remporté woon na tamit le grand prix de l' internationale de la jeunesse. voilà kon nag naka mbokku téléspect auditeur u Rewmi FM dañ ko fàtte ci ñaan. jërëjëf waaye mbokku auditeur u Rewmi FM da ngeen xool sedd ndax li mu fi bàyyi mm. a ngi ci bañ a laal suuf incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah yeneen yu mënoon a wax waaye waxtu bi moo ñu dab te li nga doon wax mm. sànq am na solo am solo goo xam ne faaw ñu xam li fi Latif euh, bàyyi li mu liggéey au delà de ONG Jamra euh, surtout ci Afrique Aide Afrique ak euh, mbiram Casamance mi ñu ngi lay gërëm di ko ñaanal yàlla yeesal yërmande ci moom xaaree ko àjjana liggéey bi mu fi bàyyi itam yàlla dolli di ci def ndam ñu li ñu lay gërëm bu baax di nuyu au passage imam Massamba Diop mi nga xam ne itam mi ngi doon ànd ak yéen ci liggéey bi euh, mbokk yi kon démb ak tay la woon ci réew mi FM ñu doon waxtaanee Abdou Latif Gueye mi taxawal Jamra ak mission yi nga xam ne jot na ko doxal Sénégal delloo ko njukkal ndax juróom benn fanweer wi ñu nekk ci la doon fàttaliku maanaam Mame Mactar ñu ngi lay gërëm gërëm ñu doon déglu gërëm jaaw jàllo mi ne woon ci jàppandal gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen émission bi mun nga nañ ko teewluwaat ci réew mi officiel suñu chaîne ci youtube Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi jangeen jëf ñu yendoog jàmm